الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسانو فيدو بي كوشي تي في جسانو فيدو بي جسنا بين لاتر بو خامني بن كو بند باي موم اك بابا قاهره نيم جفي euh kon ci يمت yu nit ci فخنا jàng جفي جفي يو يب not jafe-jafe yooyu yëpp amul dara lu ko ci université bi nga xam ne mooy université Ayn Shams ci mboolem doomi Madina yi nekkoon foofu Qahira mën nañoo wax ne moom kenn rek moo ci génnee université bu Ayn Shams ñu ci des ñëpp al azhar lañ génnee muy ñaareeli doomi Madina bu am licence gannaaw Cheikh Mouhamadou Lamine Ibrahim Niass moom rek moo ko njëkk am licence am ci doomi Madina yi nga xam ne ñoo fa nekkoon gannaaw bu mu jàngee ba am licence am ci ndigali Islam Ibrahim ko fi dem ngir mottali li nga xam ne moo ci anglais dinañ ci ñëw importance jàng langue étranger ni mu amee importance euh, mu dem fa nag ba am li nga xam ne magistère ci philosophie ba tey muy ñaareeli doomi Madina bu am magistère gannaaw Cheikh Mouhamadou Lamine Ibrahim Niass gannaaw bu mu jàngee foofu ci Angleterre Mawlana Cheikh Ibrahim Niass fekk ko fa mu nekk di ko xidma di ko jàngal ay ahadis ba Mawlana Cheikh Ibrahim Niass wuy ji boromam ci kanamam te loolu moo Mawlana Cheikh Ibrahima moo ko waxoon ne ko du ma génn àdduna mukk lu may na da teew kon noonu la nekkee London ba tàmbali nag ci ay relation yoo xam ne amoon na ko ak ñi nga xam ne ñoo di waa Britannique ak américain yi nga xam ne ñoo mën fa daan fekk mu tàmbali di dugg fi nga xam ne moo di Amérique di fa dugal li nga xam ne moo di tariqa tijaaniya danañ fi ñëw liggéey yi nga xam ne liggéey na ko ci Amérique ci 1976 ci la dugal li nga xam ne moo di tariqa tijaniya gën koo tasaare ci fi nga xam ne moo di amerique loolu nag di dëggal di wax joo xam ne waxoon na ko ci jamono bi muy jàng ci loxo Baye Amadou Thiam ndax Baye Amadou Thiam moo toog ba ci kaw mu ne ana kan moo ñuy ubbil Amérique imam yëkkati loxoom ne moom mooy ubbi Amérique yàlla dëggal loolu gannaaw ay at mu nekk foofu ci Amérique dafa liggéey liggéey yoo xam ne yu am solo ba 1982 bi Mawlana Cheikhul Islam Alhaaj Ibrahim yes Niass wujjee boromam bi Mawlana sid Aliou Cissé wujjee boromam mu ñëw nag ngir taxaw taxawaay imaamatu ci Medina Baye ci ndigali Mawlana Cheikhul Islam Alxaaj Ibrahim Niass bi nga xam ne moo ci wasiya bi bi mu ñëwee li mu def moom Cheikh Imam Hassan Cissé mooy sos daara alquranul karim ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax naan xayrukum man taallama alqurana wa allamahu mooy ki nga xam ne dafa jàng alquraanu karim ba pare di ko jàngale ci beneen riwaaya ñu ne afdalukum man taallama alquraanu karim wa allamahu ki gën ci yéen ba tey mooy ki jàng alquraanu karim jàllar bi di ko jàngale loolu moo tax mu sos daaraam ji nga xam ne mën nañoo wax ne ci Sénégal moom rek la ñu gis daara joo xam ne ay doomi Amérique ñu ngi ciy tari alquraanu karim ndax lu ëpp fukki américain ak juróom jàng nañ fi ba tari alquraanu karim te loolu ci daara cheikh imam xasan siise rek dañ koy gisee gannaaw bu mu sosee daara ji ci alquraanu karim ku nekk xam na ne mooy kalaama mawlaana cheikhul islaam alxaaj ibrahima ñas dañuy wax ne képp ku wàcce alquraan rek bokk nga ci nangu ñaan gi nga xam ne yàlla nangu na ko ñaani mawlaana cheikh ibrahima ñas fii ci madina نخبعي مولانا فلتجعلن حفظ كتابك الكريم كرامتي الى لقائك العظيم. يا يالا يالا نعرف القران وتو القران الكريم مشوى كرامه ببسم ميدا جيو. يا موتشلولو موتابخ ايكول بو خمنا دنشي جانغل خم خم. نخ كيف بوكودان تري القران في مدينه باي. باي لملا ينجك يبي موي القران تمبلي لك am na lu bari loo xam ne des na ci sa kanam mooy war góor góorlu pour jàng li nga xam ne moo di xam-xam loolu moo taxoon mu tabax institut islamique africain américain ngir wesare li nga xam ne moo di xam-xam te ku nekk xam na ne xam-xam mooy doono yonent yi sallallahu alayhi wa sallam yonent yi doon wuñ darham doon wuñ dinaar waaye xam-xam lañ doon كيف كو خمنا يالا ماينا لا سي تير بو لو كون يو بوك ما سي دونا صلى الله عليه وسلم وي بنينا وان العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف خم خم موي فك نيك بو خمني امول بن مو يگت لين بانيو يگتكو نيب خم waaye réer tamit mooy fekk néeg boo xam ne ñëpp leen xamoon ñu suufee ba ila asfalil asafilin yàlla nañu ci yàlla musal mu sos école boobu nga xam ne mooy institut islamique africain américain ci 1995 di école boo xam ne mi ngi fii suñu gannaaw mboolem maraaxil yi mi ngi ci lu ko dalee ba ci jardin d'enfants ba ci de sanawiya at yi weesu gis nañ ne am na ci at yoo xam ne mooy école bi gën résultat ci biir Kaolack ci baccalauréat yi kon loolu day wane ne mbooti Cheikh Imam Hassan Cissé feeñ na ci li nga xam ne moo di école boobu ndax résultat yi nga xam ne mi ngi koy def waxtu nekk ci fi nga xam ne moo di Kaolack euh, école la boo xam ne mbooleem xam-xam yi ñu ngi ko fay jàngale waaye mbooleem langue yi tamit ñu ngi ko fay jànge wax naa ko léegi ku góorgóorlu woon ci langue étranger Cheikh Moustapha ñas wax na ko léegi bi mu toogee ci kanami buur bi di làkk anglais buur bi ci boppam dafa jaaxle ci anglais yu rafet yi nga xam ne Cheikh Imam Hassan Cissé moom la doon làkk ci kanamam te làkk jàmbur nga di ko jàng dafa nekk loo xam ne yonent bi sallallahu daf koo digle ndax yonent bi sallallahu alayhi wa zeyd ibnu saabit nee na yonent bi sallallahu alayhi wa digaloon na ko mu jàng langue bi nga xam ne moo di saryaaniya mu futteeku jàng ko ci fukki fan ak juróom-ñaar ci la ko dégg dañuy wax ne man taallama lugata qawmin amina min makrihim am na ñu ne xadis la waaye am na ñu ne tamit du xadis képp koo xam ne jàng nga làkk jàmbur da nga mucc ci seeni pexe kon loolu moo taxoon yàlla may ko mu nekkoon koo xam ne moom it ku itte woon la li nga xam ne moo di lugaat al ajnabiya Cheikh Imam Hassan Cissé liggéeyam euh, liggéey yu fës la te lépp pour askan wi la xam-xam boobu di école beeg daara ji yëpp daf ko def ngir askan wi waaye yemut ci loolu مطبخ كلينيك دي شفاء الاسقام غير غير ني اسكان وي بور يومبال لين سن فاجو يونتبي صلى الله عليه وسلم دا فاي المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف جامو يالا بو دغر ام وير غو يارام مو گن موم لا يالا گنا سوب سي جام بو خامني ا آه، ا آه، dafa lompañ wala dafa néew doole yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey nee na nicmataani maqbunun fihima kasirun min annaas alsixatu walfaraag bëri na ñoo xam ne ñaari xéewal yi nga xam ne dañ koy sàgganee te mooy wér yaram ak li nga xam ne moo di euh, yàlla may la temps nga war koo def ci lu lay jëriñ nga di ko sàggane ba tey ci beneen xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee فإن الله عز وجل لم يدع داء إلا ودع له دواء نغين دي فاجو يالا بن فيبر لوماي ني جرب غرب كوكاي فاج جيرين لولو نيغا خامني مو نيك شيخ امام حسن سيسي طبق الاسكنوي كلينيك بو خامني دا نالين ويفال ليغا خامني مودي فاجو بوبو دا نالين كو يومبالون مو نيك لو خامني كو تي yàgg nañoo toog di déglu ci rajo jumaa ji ñu ne dem leen clinique imam Hassan Cissé ngi joxe foofu garab te loolu yàgg naa am ba ay bésam yu mujj talaata alarba bi mu génn àddina ci talaata bi woo ma fii ci néegam na ma demal nga toog ak sa papa Daouda Samb ngeen xool clinique yi nga xam ne ñoo war a jël si seen garab yi nga dem annonce ko ci rajo eh, Alfayda ñu ñëw jël si li nga xam ne moo di seeni garab te noonu lañ ko defee keroog kon moom waxtu nekk rek ay yëngatoom yëpp ak ay xalaatam mooy lépp loo xam ne ñu jëriñ askan wi la yamut ci clinique bi mu tabaxal askan wi université boo xam ne day tàggat ay médecin pour ñu mën a nekk ay médecin yoo xam ne yu xereñ lañu ci wàllu faj ci bi 2003 ci la tabax li nga xamne modi université Cheikh Ibrahim Niass tudé ko baye bi nga xamne université lon bu doon dox ci kaw souf université bobu ci ziaram bu mujj ci Kosi Atlanta waxon na ne bëgg na taxol université bi fi ci Kaolack ci walu wér ko yaram ci yag dox yàgg cee yëngatu ba mbootaayu xeet yi reconnaître loolu ndax keroog bi nga xamee ne Nigéria am nañ problème ci nu ñuy fexee ba nanguloo askan wi ñu ñàkku feebar boobu nga xam ne mooy polio nga xam ne dafay lompañloo say tànk def nañ lépp lu ñu man mënuñoo fexe ba nanguloo askan wu Nigéria pour ñu ñeme ko ñàkku ñu gis ne benn bunt rek lañ mën a fëgg jaaree fa seen eh, soxla boobu faju te mooy buntu Cheikh Imam Hassan Cissé biñ ñëwee waxtaan ak moom mu jugee ko fi ba Nigéria doxal mission boobu kenam gën a askanu Nigéria yëpp nangoo ñàkku li nga xam ne moo di polio boobu bim réussir ci mission boobu ñoo taay xëy di yónni gërëm ko ci li nga xam ne moo di taxawaay boobu motay bi nga xamne moy organisation bi yu yore walu wergu yaram ci adina bi momit bindu ko letter geureum ko ci taxaway bi nga xamne taxaw nako conférence islamique momit bindu ko letter geureum ko ci taxaway bobu letter yoy yeb mang ko yore sumay archive euh ci walu communication batay tey lu itteeloon la moulana Cheikhul Islam al Alhaaj Ibrahim Niass communication lirna ci jaridatul akhbar ca Égypte ci mars 1961 bàyyi bi mu demee Égypte nee na waxtaan naag Jamal Abdou Nasser mi nga xam ne moo doon président bu Égypte ñaan na ko ne ko mu dimbale ko mu sos journal boo xam ne mu tabax journal boo xam ne day bind ci français di bind ci anglais di bind ci arab loolu boo demee ci jaridatul axbaar ca Égypte da ko ci fekk ittoo boobu nga xam ne moom la bàyyi ittoo wàllu communication nga xam ne ku nekk xam na ne njëriñ la ci képp koo xam ne daariya nga moo taxoon imaam Hassan Cissé ne bëgg-bëgg boobu nga xam ne bàyyi amoon na ko incha allah dana ko dëggal ci la commencé di dox ci li nga xam ne moo di am rajo ba yàlla indi rajo boobu ci 2005 waaye lu jiitu loolu ci la commencé di ci dox. ndax man ñëw naa vacances jógee ko Égypte 1998 bi ma ñëwee imam Oma wan ma lettre boo xam ne président Abdou Diouf moo ko jox moo ko bind euh, ci wàll rajo boobu ak itteew boo xam ne mi ngi koy itteew pour tabax rajo bi may ñibbi mu ne ma boo demee nga defal ma ci ay gëstu ci wàll tabax beeg yooyu ak euh, matériel yi mu laaj. bi ma demee ma gisante ki nga xam ne mooy installé mboolem rajo yi ci ab réewu arab yi képp kuy installé rajo ci réewu arab moo lay installé sa rajo moom mooy directeur bi nga xam ne mooy directeur technique bu mboolem rajo yi ci rajo Caire bi ma gisee moom waxtaan ak moom oo Cheikh Imam Hassan Cissé jox ko ko paas ko ko ñu toog waxtaan ñoom ñaar kon moom ku yàgg ittewale li nga xam ne moo di wàll rajo ba yàlla indi rajo boobu ci 2005 euh, ci la ko yàlla indi mu njëkk a fii ci tabax bii nii ci la njëkk a émettre 2006 janvier 2006 ci lañ ko toxal ci fi mu nekk nii ci bisi tabaski ci la njëkk ubbi rajo bi keroog imaam ne ma demal nga gis mbooleem muqaddam yi ñu wax seen xalaat ci rajo bi keroog mbooleem muqaddam yi sénégalais yi ak naar yeeg ñëpp dem naa tàll leen micro ñu wax ci seen xalaat ci rajo bi ak boole seen mbégte ci rajo bi nga xam ne mébéti Mawlana Cheikhul Islam Alxaaj Ibrahima Ñas la woon euh, mu ittewoo ba jàppalante rek la voix de l'Amérique pour ñu tabaxal ko rajo boo xam ne mooy rajo bi gën a rafet ci biir Sénégal mën nañu wax na ci Sénégal ci jamono boobu te ba léegi euh, ñu uni génne rajo bi ci juin 2008 mën nañoo wax ne bés bi ñu inauguré rajo Alfayda bés boobu ci la fa imaam mujjee teg tànkam te mooy ne kon rajo bi daf ko def ngir askan wi defu ko ngir boppam waaye daf ko def ngir askan wi euh, loolu di liggéey yoo xam ne liggéey am solo la yoo xam ne Cheikh Imam Hassan Cissé mi ngi koy defal askan wi ci walu relation extérieure da nga gis ne bay na ci war gu yaatoo yaatoo yaatu mu nekkoon koo xam ne ku yaatoon la ay relation ak mbooleem réewi àddina bi ndax loolu yàlla moo ko digle borom bi tabaraka wa taala nee na yaa ayuha nnaas inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa inna akramakum inda allahi atqaakum yàlla dafa bind askan wi ngir ñu xamante loolu moo taxoon cheikh imam Hassan Cissé itti woon lool pour yaatal li nga xam ne moo di relation niroo ko ak Mawlana cheikhul islam alxaaji Ibrahim Niass mi nga xam ne fépp fu mu dem rek da nga gis ne buur yéeg euh, président ñëpp dañ ko daan ittewoo ngir xalaatam bu rafet imaam Xasan Cissé moom it noonu la meloon xam nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fonkoon la di yaatal ay relation ak mboolem xeet yi ndax gis nañ leetar yi nga xam ne daana ko bind buur yi nga xam ne ñoo jobanaatu ak moom bu demee ni ki mu xawqis ca Égypte bu demee ni ki Kisra ca Perse bu demee nekk xaraqli ci Room ñoom ñëpp gis nañ ay leetar yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan bind te ñu ci bëri ci ñoom wala ñoom ñëpp sax daanaka duñ ay jullit waaye rek ngir wane rek ne euh, nit ki dafa war a gën a rataxal relation ak xeet yi nga xam ne ñoom lay dundat imaam gëm-gëm boobu la amoon comme ni ko Mawlana Cheikh Ibrahima daan ko defee mu nekkoon koo xam ne mbooleem président yi nga xam ne ñoom la bokkoon ak jamono xamante woon nañu ak moom daanañ ittewoo di ko déglu di déglu ay xalaatam dañ ci tudd ñenn rek ku demee ni ki président bu Afrique du Sud Thabo Mbeki président bu Tchad Idrissa Déby président bu euh, Ghana John Kafor ak ki nga xam ne moo di buuri Maroc Mohamed Sadis ak président bu Libi ba mohammed Gaddafi nga xamne ne bi mi ñëw Medina euh vraiment euh ñëw la go xamne ne boko xolé ko xoolee bu fonkoon Cheikh Imam Hassan sissela ndax ci peggam la tek Cheikh Imam Hassan sissela ñu dend ni kenn taxul seen digënté ñom ñaar loolu rek ngir fonk go xamne président yoy fonk nañ ko ko mo taxoon ñu ko daan wo ci mbolem daje yi nga xamne ne daana am ci aduna bi bu fa daan ñëw di fa def ay discours di fa joxe ay xalaatam ci 2002 woo nañ ko ci Bamako ngir mu ñëw teewee daje boo xam ne dañ fa daan waxtaanee l'islam ak violence l'islam naka lay gisee violence contre xale yu ndaw yi mu def fa discours boo xam ne discours bu am solo la. ci 2004 woo nañ ko ci euh, fi nga xam ne moo di umam mutahida ngir mu joxe xalaatam. ci problème yi nga xam ne mooy problème wér-gu-yaram yu xale yi ci 2005 ci Espagne daje boo xam ne borom xam-xam yi diine yi ñoo ko doon def foofu ñu woo ko ci mu ñëw teewee li nga xam ne moo di daje boobu def fa discours boo xam ne discours bu am solo la ci 2006 woo nañ ko ci Maroc ci daje boo xam ne borom xam-xam yi tijaan yi ñoo ko doon def foofu keroog kaddu gi nga xam ne mooy kaddu mboolem gan yi teewoon daje ba Cheikh Imam Xasan Cissé lañ ko jox mu wax ci turi mbooleem gan yi nga xam ne ñoo teewoon ci daje boobu ci 2008 mooy euh, daje bu mujjee fekkee ci wàll international di daje boo xam ne mi nga amoon ci Norvège ñu doon dajee pour seet dialogue entre chrétiens yi ak jullit ñi te mooy daje boobu moom la mujjee teewee ci euh, wàll international Imam Xasan Cissé nekkoon koo xamee léppam njëriñ la woon nekkoon na it mustachar ci président bu Gaana ci lépp loo xam ne moo aju ci wàll gaan eh, lislaam da ci daan diisoo ak moom nekkoon na président réseau islamique pour la développement du peuple loolu bañ koy sos ci 2006 eh, Imam Hassan Cissé lañ jiite loon ci réseau boobu keroog maa ngi fa teewoon doon ko jàllale ci alfayda eh, ba tey it nañ ko ambassadeur itinéraire ñeel xale yi nga xam ne ñooy nàmp eh, ba tey waaye post yooyu yëpp li ci gën a fonk gën a cher ci xolam mooy ilimaani Medina Baye mooy li nga xam ne mboolem eh, li nga xam ne jox nañ ko ko boobu moom bi nga xam ne mooy moom la ci gën a fonk te ilimaani Medina Baye Baye moo ko ko junj bu yàgg yàgg yàgg yàgg ndax dañuy wax ne jiite na bàyyi ci 1967 bi nga xamee ne Demba jóob moom lañ tuddee stade Demba Diop bi mu génnee àddina Baye yebal si daal di mu dem jottali njaaleem tàkkusaan jot ñu Baye ñëw ci jumaa ji bi ñëwee. fekk Seydi Aliou Cissé ak say gut bàyyi gëstu gis imaam Xasan Cissé jiital ko mu jiite keroog tàkkusaan googu te ci biir julli gi Seydi Aliou Cissé ñëw na mu jiite leen ñoom ñaar ñëpp ñu ngi nettali tamit ne ci Qahira ci 1968 bàyyi ñëw na Qahira foofu euh, bàyyi toog ci hôtel bi ci néegam imaam dugg si bi imaam fëggee mu ne ko aksil suñu imaam bi xanaa xamoon ne yaay suñu ilimaan te loolu yëpp fekk na Baye mi ngi junju wane ne kii ëllëg mooy nekk ilimaan yi Medina Baye te ci moom lañ njëkk a tàmbalee ku nekk ilimaan Medina Baye ñu naan la ilim imaam ndax lu jiitu loolu ñi fi nekkoon imaam ñëpp daawuñ siiwee imaam waaye loolu ci moom la njëkk a tàmbalee euh, شيخ امام حسن سيسي اك دعوه الاسلاميه بين تيوار وياتو ياتو ياتو ياتو داخ موم ليبام ريك دعوه لا امول فن فو خمن دا نا فا ديم لوماي دا نا ايتيو جيما دوغال نيت سي الاسلام ولا دوغال نيت سي طريقه تيجانيه بو خوله واخو ما سخ سي ادي نيكي waye atam yu mujj rek luko dalé 2000 ba 2008 lim duggal ci l'islam su ñoo gis ci taarix kenn ku ko mësa def ci taarix ci ku may Mawlana Cheikhul Islam al Alxaaji Ibrahim yass ci 2000 ci Afrique du Sud tok nañ mu duggal témer nit ci l'islam ci benn jotay تلول مصنوع جس كتابي كما صدف كما يقول على شيخ الإسلام الحاج برامياس بمكو دفعي تيين دي في جولية 2006 في دك بني وق بالا في تشاد دوغال نفلو أب جنين في الإسلام في بن جوتاي في 2008 في داغروس دك بني وق داغروس في كاميرون دوغال نفلو أب جنين في الإسلام في بن جوتاي كون كوكو dafa nekkoon koo xam ne liggéeyam yëpp dundam yëpp daf ko jox lislaam di liggéeyam li nga xam ne moo di lislaam ci 2007 Pape Benoît Sèye toog na fi wax ay wax yoo xam ne jaaduwut ci lislaam keroog imaam tontu ko comme ni ko bàyyi defee ci la feebar di taxawee di teg ay wax yu jaaduwut ci lislaam bàyyi tontu ko ci ifriqiya lil ifriqiyin taarix yuidu nafsahu loolu la imaam def ci 2007 bi nga xamee ne Pape Benoît XVI taxaw na wax ci lislaam loo xam ne jaaduwut imaam tontu ko tontu yoo xam ne yaakaar naa ne archive yooyu ba léegi mi ngi ci alfayda man maa ngi ko yore suma ordinateur ndax keroog man maa ko doon enregistré loolu yépp di wane xiir goo xam ne xiir na ko ci lislaam ittewoo goo xam ne mi ngi koy ittewoo li nga xam ne moo di bu ñëwee ci tabeem imaam nag ak tabe mën ngaa wax lu la neex ndax tabe du ma wax mooy ñaareelu turam mooy première turam yàlla tabaraka wa taala wax ne ne wa tunfiqu min xayrin yuwaffa ilaykum wa antum laa taalamun yonente sallallahu alayhi wa sallam nee afdalul amali أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تعطي أو تعطيه أو تقضي عنه دينا جن جف بجن جفي موي قد قال تسق بك جلد تسق قال بك جلد مكتي ولا ميرى بر بديس الله سب نتقل كبر يوي ولا مقيف نقلها الكو même buy benn dogiti mburu sax te ñaata la imaam daan dimbale par weer fii ci e, Kaolack ak lu ko wër ba ci biir Sénégal sax wax nañ ne lim daan joxe ci di dimbali nit ñi ci dépense rek daanaka weer bu jot dana génnee juróom benn million yoo xam ne daf ko daan joxe di ko séddale nit ñi dafa am woo xam ne keroog koo xam ne keroog bi bàyyi génne àddina moom lim njëkk a xalaat mooy kan la bàyyi bàttali dépense bi waaye imaam tamit xam naa ne ay junne junne xalaat nañ keroog bi mu génnee àddina kan la bàttali dépense bi ndax daf daan joxe te du faalewut ñàkk mën naa toog comme ni ko daan bàyyi di defee bàyyi daf daan toog dépense bi rekk nekk ci loxoom jaamu yàlla ñëw rek mu yëkkati jox la imaam Assane Cissé tamit noonu la daan def fi mu toog lépp lu nekk ci loxoom bu jàmm yàlla ñëwee pare ne pour jox ko ko toog xar yàlla loolu képp ku dund ak Cheikh Imam Assane xam nga ko ci moom ba ci néew ju doole yi nga xam ne ñoo nekk ci jumaa ji def leen daan dimbale ba leen di fay bor sax ci ndimbal loolu te loolu mosuñoo gis ku ko def mosu ñoo gis ci àddina bi kuy fay kuy dimbali nit ba di ko ci fay bor tukki ñaari weer ñëw ne ñaata la leen yoreel ci ndimbal yi ma leen daan jox ñu wax mu compte jox leen loolu mbaax rawul loolu kon kooku dafa niiru Mawlana Cheikhul Islam Alxaaj Ibrahim Niass lépp looy gëstu ci bàyyi rek xool ko ci imam Hassan Cissé lépp looy gis na rek Mawlana Cheikh Ibrahim Niass mi ngi coon ci mbaax boo xoolee da nga ko gis ci Cheikh imam Hassan Cissé ndax mom da fay wax ne mom bàyyi rek lay roy ci lu nek di bàyyi don roy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne def ne iza sara khairun nas sirtu waraahu wa in xalla yowman falmasiru baidun waaye lisaanu khali imam hasan xasan sise da fay wax naan iza sara shaykhul asr sirtu waraahu wa in yawman fal falmasiru ba'id nun la daan dimbele new ji dole yi ba fu nek ci adina bi yemalewu ko sax Sénégal ca Égypte ca Arabie Saoudi toog na Arabie Saoudi jox ko fa ay saako xaalis daf ko séddale ba mu jeex tàkk te mënoon na ko indi fii Sénégal tabax ci ay palais waaye moom gisut palais moom li mu gis mooy dimbale jaamu yàlla yi bégal seeni xol loolu mooy ki nga xam ne moo di Cheikh Imam Hassan Cissé Imam Hassan Cissé nekkoon koo xam ne dëgg-dëgg yàlla moo ñu ko joxoon yàlla moom rekk moo xam li tax mu bind ko ndax daf ko bindee comme ni mu ko neexee moom borom bi tabaaraka wa taala loolu ci la jeexal dundam bi yépp jaamu yàlla liggéeyal askan wi dimbale jaamu yàlla yi liggéeyal lislaam liggéeyal tariqa tijaaniye liggéeyal maamam ba am ngërmaane maamam radiallahu anhuma loolu ci la def dundam bi yëpp ba bés bi nga xam ne ci lay génn àddina nga xam ne juróomi waxtu yépp ci jumaa ji la ko julli jokk mbokk door ñëw wuy ji boromam tabaraka wa taala mu génn àddina ci bési àllarba bi nga xam ne ci la gane àddina ndax àllarba la gane àddina àllarba ci la génn àddina loolu mu niroo ko yonent bi sallallahu wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam altine la gane àddina waaye altine yi ci la génn àddina mu am dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di juróom benn fukki at ak ñett di yonent bi sallallahu wa sallam dund moom la dund nekkoon koo xam ne mën nga wax ne mooy doona yonent bi sallallahu alayhi wa sallam damay fàttaliku bi ñu nekk Qahira ci Misra Jadida suñu mag Seydina Cissé nga xam ne moo doon suñu mag ci kër gi ñu naan ñoom Cheikh Mahi ñoom Cheikh Ousmane Cissé Cheikh Nazir Cissé ci kër gi benn bis may wax Seydina Cissé ne ko man daal xaw ma lan la waaye man masumaa gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci gént xaw ma daal lu waral loolu mosuma gis yonent bi sallallahu alayhi wa ci gént Seydina jox ma ay tur ne ma ko soo ko sikkaree danga gis yonent bi sallallahu alayhi bi ma ko sikkaree ci guddi googu gis àddina bi yëpp jëmali aéroport bu Dakar ñu bàyyi mooy jógee ko Nigéria di ñëw aéroport Dakar fees del del del del ñuy teeru Mawlana Cheikhul Islam Alhaji Ibrahim Niass bi muy génn ci avion bi rek jëmm imaam Assane Cissé moo génn ñépp a ngi teeru bàyyi waaye bi muy génn rek jëmm Cheikh Imam Assane Cissé moo génn ci avion bi ñépp topp ci gannaawam di ko si kon kon kooku dona yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam yal nañu ko yàlla fayal fi may jeexalee rek di mbooleem suma sëriñ yi nga xam ne ñoo fi nekk di cheikh Ibrahima Cissé El Kabir cheikh Ahmed ak cheikh Moustapha eh, di leen nuyu bu baax sumay sëriñ waaye du ma wax sumay rakk waaye sumay mag ndax man kenn laa ci kër gi eh, suma yaay yaa Fatimatu Zahra moo ko yar ba man néeg yaa Fatimatu Zahra fa juddoo li ma fa génnee mooy bi may am juróomi at ci la suma yaay génn àddina ma door a dem ci soo maam ci kër Baay Ñas gannaaw bi ma demee ba tari benn bés imaam ñëw vacances suma maam teg ko ci kanami baay ne ko ni ma séddee woon roqi caam cheikh fatimatu zahra noonu laa séddee baay caam yi imaam xasan siise loolu moo tax suma lépp moo ko yore woon xaaxira li ma fa nekk yépp njaboot gi laa dëkkat ba niñ fay jógeekoo ñoom ñoom ñëpp ba niñ fay jógeekoo ko man ma continuer fa di liggéey te loolu rëccuuma ci dara ak ndolla rek laa ci gis ak dolleeku waxtu nekk ci suma kàndoo ak njaboot gi di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah aku libi ngeen ngeen yeen ñi ànd ak gaal yéen ay liggéey du baay bi di barahama TV Ambil jarama yéen ñi ànd ak baay yéen ay du bi di barahama ñu ngi leen di gërëm ñu di TV